mbokk yi di leen jaajëfalaat ci ànd geeg topp gi seen site numéro un de l'actualité sur mobile Sénégo ni muy koy defee waxtu wu ne rek ci ay xibaar yoo xam ne soxal na dundin askan wi ñu daal cee def taxaw seetlu daat ci dikkaat lanu bëgg a def taxaw seetlu tey mooy coowal euh, trafic passeport et diplomatique yi ndax am na rebondissement yoo xam ne daal na ci am ba sax am na ay célébrité yoo xamante ne nekk ñoom bénéficié wu nañ ci mbirum passeport euh, diplomatique yooyu. waaye li ci gën a doy te mu doon loo xam ne ba tey am na ñoo xam ne dese nañ kaa comprendre ci askan wi mooy naka la ñu fexe ba am scan lettre ki nga xamante ne moom mooy injiitum réew mi ndax coow li dafa àgg ba présidence. nan la àggee ba présidence ci lañ bëgg ñëw naka la ci ay gendarme ñu cité leen ci ba enquête bi dem ba euh, maanaam ñu euh, jàpp ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy cerveau yi euh, maanaam mafia organisée boobee nga xamante ne woon ñoom ñoo doon yëngu ci biirum passeport diplomatique yi ak di mbubboo ay turu kilifa ci réew mi ba nga xamante ne nii daal nañ ci encaissé xaalis gu takku takku waaye yàlla mi dara teewul ak ci xarañte dikk muy division des investigations criminelles def nañ ci enquête yu mucc ayib ba mbir yi daal mi ngi gën a leer waaye nag am na loo xam ne mi ngi ci loxol justice danañ leen déglu lu ci munti am rek daan leen ko indi ngir euh, dolli leen ci ci wàllu xibaar. madikaat ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy euh, mbir mi xewoon ca présidence aide de camp gi ñuy wax. Euh, général euh, Sélé Ndiaye euh, saisir euh, DIC division des investigations criminelles ci ay weer yële ñu génn ñoom itamit ñu amoon benn piste daal cee nekk ndax sax ñoom ci seen xarañte dañoo dem ba mbubboo ñoo xamante ni dañuy sàkku am passeport diplomatique yi noonu la mbir yi leeree benn par benn. seen cerveau bi nag bokk na ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax Limamou Laye Seck Ousseynou Ba Assane Dione Badara Samb Cheikh Samb ak ki ñuy wax Ali Ndaw waaye nag naka lañu def ba di maanaam jëfandikoo li nga xamante ni moom mooy signature président bi te yëgul tinul waaye ñenn ñi sax nee nañ waruñu mën a nangu ndax lu toll nii maanaam présidence war nañ mën a am tous les éléments qu'il ngir ñuy mën a bàyyi xel seen bopp ci ñenn ñi bu ñu bëggee def yi xeetu arnak yooyu noonu wala di def xeetu ñaawtef yooyu noonu ndax i tamit euh, du luy honorer image yu euh, république bi waaye nag yàlla dogal na aide de camp bi ci moom it collaboration yi mu am ak ñenn ci tàkk der yi situé nañ mbir yi ba xam fu responsabilité féete la ca des nag moom euh, mbir yi jur na ay mandat de dépôt ak maanaam li ñuy tuddee réquisitoire introductif ci ministère public qui vise x ak mandat de dépôt faux et usage de faux dans un document administratif ak escroquerie kon mbir yi fu mu féete rek dinañ ci dikkaat en détail euh, muy euh, coowal trafic passeport diplomatique yi duñu ci yem ndax am na ay célébrité yoo xam ne nekkate bénéficié wu nañ ci bokk na ci tey jii ni ci xibaar yi tudd nañ ci euh, karamboj karamboj nga xamante ni moom versé na lu toll ci 3 millions 500 francs CFA ki nga xamante ni moom mooy Badara bu nga xam ne agent loon woon ca fële ci ministère des affaires étrangères waaye Fabien Fillion nga xamante ni nekkoon na fi ex mis Sénégal moom it sollicité woon na passeport diplomatique waaye dañ ko mujj rouler dans la farin ndax moom jotoon na versé 3 millions waaye moom mujjul am li mu bëgg ca mbir mi. ndax Sénégal nii leen ko nar a bàyyi muy wéy ak ñaawteef muy wéy ak nit ñoo xamante ni tey jii nii dañuy euh, mbubboo euh, euh, loo xamante ni doonunu ko ba di ci arnaque nit ñi ba di ci joxe une image négative de notre république ci la nit ñi bëggoon def taxaw seetlu interpellé waat leen ci coowal trafic passeport diplomatique yi ndax. tamit nu bàyyi xel ni am na enquête goo xam ne mi ngi en par rapport ak ñaari député yooyu nga xam ne ni fan la lépp tàmbale woon muy député Biaye ak Sall nga xam ne mujj nañ yëkkati seen balaanu kiiraay ngir euh, maanaam mën leen a àtte ñu xam seen responsabilité ci mbir mi ndax it fa nu nar a jëmee maanaam askan wi ak fa mu nar a jëmee image yu république bi dafa doon loo xamante ni xëy na mun na bañ doon lu ni euh, rafetlu ndax euh, république dafa sacré te tamit bu demee ba ku jug maanaam mën a am passeport diplomatique ku jug mën a Euh, trafiquer wala mën a def usurpation wala mën a def ay usage et faux de document ba lu toll ni mooy président de la république réew mi kon euh, jot na réew mi maanaam def euh, taxaw seetlu mën a xoolaat mbir yi naka lay doxe parce que tamit bu fekkee yoon woowu la ñu a jëm rek xëy na ñenn ñi dañuy jàpp ni kon finalement dañuy bëgg dañuy mën a wax ni réew mi lu waaye neex def waaye ndokk ba yoon am na fi ndokk ba am na ñoo xam ne mbir mi fi mu ne nii ñu ngi ci léegi nag fan ci munti yem rek ci wàllu xibaar daañ dikk ak yéen pour leeralal leen ko nekkoon euh, taxaw euh, seetlu bésu tey ji ci coowal euh, passeport diplomatique yi di leen fa